asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax yàq leen di am mbégte saa su ne vidéo match Marseille laa doon seetaan du coup match bi doon si am jàngat parce que Bamba Dieng dafa titulaire xam nga donc ak le profil bi xamante c'est assez intéressant pour Aliou mais avant ça je tenais quand même à remercier depuis démb laa wax ne dama def kañu joxe sama numéro Wave mais tey dama yeewu gis gars yi di env donc un grand merci ñi nekk fii ci réew mi ñi nekk bitim réew aw ma fay après une autre vidéo su ma téye micro bi dinaa leen remercier bu baax a baax franchement amu seen fay et que aussi tamit ajouté leen sama groupe WhatsApp comme ça on reste en contact xam nga donc loolu tamit c'est assez intéressant même si j'ai quatre groupes WhatsApp c'est voilà xam nga donc nous dinaa jéem ajouté yeneen gars yi comme ça ñu rester en contact nga nekk si groupe yi aussi tamit di waxtaan et tout donc mbokk yi merci beaucoup mbokk yi tey daf démb dañu gis Abdallah Sima gis ngeen forme bu mu nekk je pense que comme ñu leen nettali Abdallah Sima lu mu nekk di performer jamono bi donc tey ma gis Bamba Dieng donc à Cissé boo ko xamee tuuti di nga xam ne entre Sima ak Bamba Dieng Bamba Dieng la gën a bëgg mais aussi oh, Bamba Dieng sax boo ko bëggee dëgg boo ko bëggee yow Bamba Dieng boo ko bëggee boo ko bëggee wax dëgg parce que Sénégal dafa nekk dëkk bu xaw a naxaree wax nag quoi boo waxee kenn rek ñenn man bëgg la mere alors que yow da ngay wax rek propre li nga gis li xamante ne moom la ñëpp gis moo ko jamono bi Abdoulaye Sima amul ko man mais Aliou Cissé boo ko xamante entre Abdoulaye Sima et eh, Bamba Dieng il préfère mille fois Bamba Dieng mais c'est pas man mi Bamba Dieng dama ko défendre ba tëddee suuf dama doon wax ne amuñu attaquant bu mel ni Bamba Dieng maanaam fit bi mu nekk bi am et eh, dama ko respecté si ñaar mooy match contre Égypte bu mu duggee deuxième mi-temps ak tiro bi nu mu dugalee ak propre âge bu mu nekkoon et le match fii nii contre Égypte conf bi ñu usé euh, pour qualifier coupe du monde donc si respect coupe du monde mu dem dugal donc c'est un attaquant boo xam que je respecte que bu ma défendre bu ma soñoon sax di jógee Marseille donc sur le point ndax bëgg naa ko wala bëgguma ko attaquant bu ma neex mais en en grande forme oui mais là là là niveau bi ma gis tey nii. da dalul sama xel pour un coupe d'Afrique quoi même si bon euh, Bamba Dieng c'est un jour bu xamante ne rek da ngay xaar fi nag mu dem fële mais lii di ciment ciment li mu nekk di def nii c'est que Aliou Cissé entre Bamba Dieng ak ciment je pense que ciment mën na dugal fi ba sonn ce sera Bamba Dieng dans sa tête mais logique bi li mu bëgg mooy que Bamba Dieng nag loo ko bëgg-bëgg Aliou Cissé logique bi mooy que bu fekkee am na ko xamante ne jamono bi dañ ko war a convoqué en équipe nationale du Sénégal c'est Abdallah Ciment il est en forme euh, appel contre appel day daw course yi xam nga lépp c'est nickel quoi il est pas blessé il peut jouer sur les côtés donc il y a tout ça Bamba Dieng c' est vrai que ak man fu man li ko xaw a may sens mooy que suñu attaquant yi kenn nekk gisul loolu suñu am suñu benn attaquant bu gis fii Simaari kaa fiy dugal bi bi yu bëri yu tax ñu mën a wax Simaari moo koy parce que Habib Diallo gis ngeen kaam Boulaye Dia gis ngeen kaam Habib Diallo benn bi dugal Shabab ñu ngi naan dañ koy jaay na France et euh, gis ngeen kaam du côté de gis ngeen kaam du kenn ngay gis muy dugal bii di toj à part Sima donc Sima boo ko tegee ci logique même sax bu dul Bamba Dieng Sima dafa war a dem fële euh, Coupe d'Afrique même bu dul Bamba Dieng am moom par concurrence ba Nicolas Jackson ak ñoom ñëpp même bu dul loolu noonu dafa war a kii nu mu tudd sax dafa dem donc bon Aliou Cissé nag man man xam naa ne dafa bëgg Bamba Dieng joueur la li nga lii di Krépin Diatta lii di Bamba Dieng xam comme ça c'est ak Kouyaté am na joueurs yoo xam ne joueurs Aliou Cissé lañu muy naaj muy taw muy métti muy kii da leen bëgg da leen convaincre Bamba Dieng nag instant bi mooy deuxième match am premier match bi titulaire dugal na bii tey mu titulaire J'ai vu le match, convaincre pour peut-être prétendre une place pour si, si, si, si, si d'Afrique. Donc, moi, je, préfère largement euh, Sima. Donc, à voir, il y a une vérité am khalat pour pour au match. Il Dina a un match Ismaël Sarr. Ismaël Sarr, il faut que nous voyons quoi. Nous avons été connectés. Remercier Bouba Ba, nous avons envoyé un khalis. C'est mon numéro wave 77 196 0540. Remercier Bouba Ba, Wahole, One Love. am na benn découverte bu may dugal ci kanam donc restez connecté léegi-léegi laa koy dugal euh, ngeen mën ko seetaan mën a like mën a partage jaajëfal naa wax leen ba beneen sur Senfootball TV